nataal fukk noonu yéesu yi génne nañ ko dëkku yerusalem foofu ay soldaar daaj nañu yéesu ci bant ci bant yoobu yéesu am na metit yu doy waar ni mu nekkee yàlla mënoon na wàcc ci bant boobu waaye defu ko ndax bu ko defoon du mën a doon suñu musalkat ci yoonu yàlla fokk mu doon nit ku amul benn taq-taq te sellu lool dee ngir bàkkaarkat yépp te loolu doomu yàlla gi rekk moo ko mënoon a def ci loolu yeesu des ci bant bi mu dee fi ñu waroon dee pour ñépp bi muy dee ci bant bi yéesu doon na mbotem yàlla bi ñuy saraxe ngir ñun jaarale ko ci deretam bu sell bi mu tuur ci loolu suñuy tooñ mën a set ci suñu yaram te ñu am mbaalum bàkkaar saraxu yéesu bi sarax bu mat la te yàlla baay bi nangu na ko bi yeesu dee ci bant bi nit ñi soxlaatuñu rey benn mala ndax seen baalum bàkkaar yéesu joxe na dundam te tuur deretam benn yoon ba faw dara desatul ndax ñu def ko lu ñu war mooy gëm ko te nangu sarax bi mu def ci bant bi ndax man ndax yow ndax ñépp